ay waay yow nee ma bàjjen laa la wax <laughs> bëriwul yaa ko moom. <laughs> léegi kii baa ngi nii garab gaa ngi nii. ci cin li da nga koy def. lan moo tax nga insouciant ah? te yow chaque weer danga war a dem sa médecin mu yow di demel mi man daal xarit sa sëy bi dafa mel ni maa ci gën a sonn daal. waaw man ni man daal maa lekkoon wargal bi. bitim bi xam nga xaaj bi est-ce que yemul woon fi est-ce la tolloon dëgg. li fi ci loolu yow gis nga xale bu jigéen bu baax ah daa war a fóotal ndeyam togg bañ waa uti góor yaayam ba jag ji xëy daa xëy te du di nelaw defut ni moom moom na ba jag ji xëy mi ngi privé du óoyoo.